maa ngi tudd Cheikh Thioune ngeen ñëw fii ci docteur Thiouraye fii ci marché HLM di leen présenter quelques produits rek nga xam ne mu ngi tukkal àdduna quoi bii ma leen di njëkk woon bii mooy kaa ñu bëggee quoi xam ku ne xam ne ne moom guddi moom c'est la bëggee te xam naa ne moom bii moom néeg boo ko piis moom bëggee moom du fa doy bay des moom bi daal jigéen ñi taamu nañ ko trop ñu ngi koy bëggee trop mooy loolu. am nañ si tamit yoo xam ne bëri na si kaay fëgg kuy fëgg moom ku ne xam ne ne moom bunt yi dajjeeku na léegi ndax kuy fëgg nii benn kër goo dem doo fekkati bunt ndax fëgg nañ lépp ba mu dajjeeku fii moom yaakaar naa bunt door famati li moom woykat bi wax na ko lu bandi di nurool lu war a ne jikkoom si biir néeg bi fii nii moom soxna yëpp léegi ay bandi lañ def nañ sax góor yàlla ay bandi léegi barki borom Tuuba man de ma jaaxle ah bi moom ku may lan la ku may tël bal amatu ci dëkk bi xale yi jigéen yëpp léegi tël nañ leen dañ leen a tël a tël a tël bañ mel ne bal léegi léegi xale yi jigéen yëpp ay bal lañ ndax tël yi ñu leen di tël xanaa tiit nga nu deux di dara fay ko man ak yow kase la you and la man ak yow donc guddi gi day fay mais nu deux day fay de Pod Marichou moom kenn du ko wax keneen ndax dëkk bi fi mu ne nii bu commencé ñëpp ñu ngi ci Pod Marichou poto ngi nii maraîchers ngi nii sama yëfa ngi nii fii nii xale yi léegi yaa gën a xam barki borom Touba waaw waaw bii moom sama yëf la moom maraîchers ay borom waaw yéen a ma gën a xam fii daal mooy docteur Thioray waaw fii moom mooy docteur Thioray bii nag mooy tës dëkk bi daanaka fi mu ne nii lépp tës la. Ahmed Aïdara tës na tës ba tës xale yi jigéen ñi léegi moo tax ñu ngi tës xale yu góor yi waaw mooy loolu waaw yii moom. moo xew si nawet li bi mooy avant goût avant madame di defaru bay pare moom lay génnaale si biir douche bi jox la ko daal lay xaw a yàq noonu préliminaire yaa ngi nii barke ba raay la kii moom dalay lay ray ba nga dee wet mi ngi nii raarati xam nga ñëpp moo tax góor ñi dugatuñ si néegi dañoo raar na fees na menteg na mër